ci wàccaayu tabaski atum 2024 bi sëriñ si dinar Diène ni mu ko baaxoo amalee at mu jot ci dem ci ki fi nekkal sëriñ Touba yóbbul ko xari tabaski yi loole nag amal na ko ci alxames ji dëppoo woon ak le 13 juin 2024 mu yóbbul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides lu toll ci ñaar téeméeri xar ak juróom-ñett fukk boole ci ci àddiya fanweeri million ak ñeent ci sunuy koppar sëriñ si naar jenn ànd kook mboolem njaboot gi ak taalibe yi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni at mu jot day gën a yokk bi fukki waxtu ak ñaar jotee ci bëccëg muy midi ci la ñu bàyyeekoo fii ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci njenne ci xayra fas yéene dem ci kër xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke ci daarul minan ngir jébbal ko liggéey bu mag bi nga xamante ni at mu jot moom lay def ànd kook mboolem taalibe yi nga xamante ni zikar si dakkul benn yoon ba ñu agsee ci daarul minan bi ñu agsee fii ci Daarul Minan Serigne Sidi Naar jenn jébbal na liggéey bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mu ñaar téeméeri ñett fukk tegaale ci fanweeri million ak ñeent ci suñu koppar boole ci jaayantewaat ak sëriñ bi fas yéene ànd ak moom liggéeyub Serigne Touba bi saa su sëriñ bi noo ngi lay nuyu te di la siyaare. noog mbooloo mi nu àndal di la xamal li di suñuy tànk moo di ñëw yeesal sunu taalu bi ak sunu jaayante ak andi sunu liggéey liggéey bi nag dañuy bañ a guddal wax ji rek ndax euh, jataay bi xaw naa yàgg liggéey bi moo di li ñu fend ci ay xar nekk na ñaari téeméeri xar ak juróom-ñett fukki xar li ci ànd ci xaalis nekk na fanweeri million ak ñeenti million ak ñeent fukki junni ñaar téeméeri xar ak juróom-ñett fukki xar fanweeri million ak ñeenti million ak juróom-ñett fukki junni ñu jox la ko yow fi mu nekkal sëriñ bi te di ko xeeb lool ànd ak yéene di ñaan nag nga ñaanal moo lañ ma àndal njaboot geeg taalibe yi ñëpp képp koo xam ne dugg na loxoom ci liggéey bi yàlla defal ak yokku saahiran baatin àddina ak àllaaxira ba bu déwénee nu man fee indi lépp lii fuuf ndax li suñu yéene ci yow ëpp na lii noo ngi ñaan nag ci yàlla barkeb Cheikh Issa Diène barkeb Serigne Touba yàlla yàggal la fi ba li say yéene lépp ci yoonu Serigne Touba yi nga def ko li si yéene ci dëkku Serigne Touba nga def ko li si yéene ci teel bi Serigne Touba yi lépp nga def ko te na ànd kook yow te nga ñaan nu itam nag la sunu maam ja Cheikh Issa Diène àndewoon ak Serigne Touba lu sax ca loola rek mooy di ko liggéeyal ba koo gis defee ni moom laalu dara ci sariha te fekk na musta bàyyi sariha ci loolu la nekkoon loolu lañ koy roy ñaanu na sax ci ba faw jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général mu Mourides sant na bu baax a baax Serigne Sidi Naar Diène ci jëfam ji nga xam ni at mu jot da koy gën a yokku waaye fàttali seen diggante bi nga xamante ni nee na yàgg na lool. Serigne leen dégg na kàddu yu baax a baax. mu ne soññeeti nag nga ñu mu ne yeesal nit digganteem ak yow mu ne diggante bi yàgg na lool mu ne te loolu lépp sa pëseefa ak sa yitte ak sa cofeel mu ne bañ ko xamee yàgg na lool waaye pëseefu sëriñ bi mu ne yëg nañ ko ci yow bu baax a baax mu ne bañ la xamee rek lañ ko yëgoon te loolu rek mooy li ci am solo mu ne ñu ngi lay san di la gërëm bu baax di la def ab soññu rek fas yéene feddali suñu laxasaay gën koo ànd ak yow gën a yeesal suñu jaayante di la ko gën a seereel mu ne loolu rek mooy li fi nekk mu ne seen diggante yéen ñaar yàgg na lool mu ne xolom sedd na guy mu ne xel xelo xelam dal na rateex mu ne mi ngi ñaan bu baax noonu nga ko bëggee mu ne suñu borom moo la moo ñu gën a dégg te mooy def mooy dindi te lépp ci barkeb sëriñ bi na ko bëggee lépp ñaane ko noonu yàlla na ko suñ borom defee noonu te ak wér jiitu ja ak fan gudd lool mu ne ñu ngi la koy ñaanal baax jërëjëf jenn jërëjëf bisimilah. ginnaaw bi sëriñ bi ñaanee ba noppi ci la ko booleeg sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ngir ñu dem xool xar yi nga xamante ni moom la sëriñ Sidi Naar Diène indi moom sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif nag santaat bu baax a baax ci jëf ji ak ni nga xam ni noonu la ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke béggee lool. nee na mi ngi nuyu sëriñ Sidi mii. di nuyu mboolem rakkam yëpp yi mu àndal. di nuyu mboolem taalibe yëpp. nee na nuyu boobu nag. nuyoob Cheikh Mouhamadul Mountakha la. ak ak cantam ak ngërëmam ak ngërëmam mu jëm si sëriñ Sidi jëm ci mboolem bokk yëpp ak taalibe yëpp nee na jëf ji mu jëf sëñ Muntaxa da ko wax ni na ñëw xoolal ko ko di fi ndawam di ay bëtam nee na bi mu xoolee jëf ji nag nee na moom day sant na lool xam xam xam na ni yet sëñ taxa xolam sedd na ndax jëf ji. ndax jëf ji. yett da cee daje. yett da cee daje. ak xarit. ak xarit. ak njureel. ak waaye sëñ ak sëñ Touba nag. waaye ak sëriñ Touba nag. mi am lépp. mi moom lépp. moom yilif lépp. yilif lépp. ndax sëñ Mountakha day wax ne. nee na sëñ Mountakha day wax ni. sëñ Sidi mii. sëriñ Sidi mii. ba mu ko jàppee. ba mu ko jàppee. booba sëriñ Naara ngi fi. sëriñ Naara ngi fi. ñu nekk ñu bokk nekk ca ñu bokk nekk ca Daaru Minam. sëriñ Sidi def ko lépp. sëriñ Sidi def ko muy léppam. ko di ko wétali. di ko wétali. di ko taxawu. di ko taxawu. di ko jàppale. di ko jàppale. ñuy dox ca noona. ñuy dox ca ba Serigne Sidi doon Serigne Naar. ba Serigne Sidi kon tey jii. kon tey jii. bu Serigne Mountakha doonee Serigne Touba. bu Serigne Mountakha doonee Serigne Touba. Serigne Sidi indi jëfam jure ji mu indi. boole ko addee ji. boole ko addee ji. sëñ bi na ci lool. sëñ bi na ci lool. xelam dal na lool itam. na lool na wax na Serigne Sidi ci nee na wax na Serigne ci biir ni ko. maa ngi lay wétali maa ngi lay wétali ko. fas yéene ànd ak yow liggéeyam Serigne Touba bi nee na wétali ko googu nag feeñ na tey jii ci jëf ji Serigne Sidi jëf. ndax sëñ Mountakha kat jenn yitte rek la am. muy taxawu liggéeyam Serigne Touba bi. bam kawe njort bam kawe njort. bam àgg fu mu daawul àgg. bam àgg fu mu daawul àgg. ndax jëf ju baax ju ne. ndax jëf ju baax ju ne. rawatina Sëriñ Touba. rawatina ju jëm ci Sëriñ Touba. dañoo wax ne amul tànki ginnaaw. dañoo wax ne amul tànki ginnaaw. tànki kanam la am. tànki kanam rek la am. bis bu set. daa day war di dolliku. bañ gis ko. bañ gis ko. loolu nag. taxawaay bi Sëriñ Sidi bii. ak ku mel ni moom. ak ku mel ni moom. mooy tax Sëriñ Mountakha mën a doxee mooy tax Sëriñ Mountakha mën a doxee noonu. moo tax sëñ Mountakha xelam dal na. moo tax sëñ Mountakha xelam dal na. ginnaaw lii yitteem. ginnaaw lii mooy yitteem. ay te an ay àndandoom. te ay àndandoom. mooy seen yitte. mooy seen yitte. ñu ngi ko ciy jàppale. ñu ngi ko ciy jàppale. ba lim ci bëgg mi ngi koy am. ba lim ci bëgg lépp mu koy am. kon xolam sedd na. nee na kon xolam sedd na. waaye jërëjëf yéen itam. waaye yéen it jërë ngeen jëf. yéen ñi ko defal lii. yéen ñi ko defal lii. nee na daal ak cantam. nee na daal ak cantam. ak ñaanam la koy àggalee. ñaan sunu borom. ñaan sunu borom. mi moom lépp. ci barkeb Serigne Touba. mi nga xam ne mi nga xam ni. lu mu bëgg suñu borom defal ko lu mu bëgg suñu borom defal ko ko. moom mii mu nekkal fi Serigne Touba. moom mii mu nekkal fi Serigne Touba. nee na mi ngi ñaan kon. nee na mi ngi ñaan kon. Serigne Touba. Serigne defal leen fan yu gudd. defal leen fan yu gudd. yu ànd ak wér. yu ànd ak wér. ak xéewal yu dolliku. ak xéewal yu dolliku. ak barke bu yaatu. ak barke bu yaatu. ak barkeel. ak barkeel. ci lépp luñ yëngu. ci lépp luñ yëngu. ak lépp luñ ak lépp luñ dugg. ci tawféexi Serigne bi. ba lu ñu bëgg. ba lépp lu ñu bëgg. ñu mën koo defee. ñu man koo defee. nañu ko bëggee ko bëggee. ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Touba. léegi Serigne wax na ko. li ko ñaar téeméeri xar. ak juróom-ñett fukki xar. moom la indi. moom la indi. ak fanweeri million. ak adde toll ci fanweeri million. ak ak ñeenti million. ak ñeenti million. ak ñeent fukki junni. ak ñeent fukki junni. te nag sëñ Sidi nag moom. nee na sëñ Sidi nag moom. xam na loolu bu fi dajee. xam na loolu bu fi dajee. seen yi seen yitte seen yitte yéen taalibe yi. moo moo tax mu man fee daje. kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf. yàlla na mën gi yokku na mën gi yokku. ba luñ bëgg. ba lépp luñ bëgg. man koo def man koo def. jërëjëf lu kawe njor lu kawe njor tam. amiin Mbàkke jërëjëf jot amiin amiin. Serigne Sidy Nar Diène nag boolewul dara ak i wax léppam liggéeyal Serigne Touba la ci jëf ànd kooku mboolem taalibe yi ndax at mu jot liggéey bi nga xam ne moom lay indil ci kër sëriñ bi nga xam ne cosaan li ma nga bàyyee woon ca maamam muy sëriñ Baara Jenn wàcc ba ci waajuram sëriñ Naar Jenn tey jii yóbbu na ko foo xamante ni kawe na lool lépp nag mu ànd kooku mboolem taalibe yi nga xam ne duñ dañ ci di ko ñaanal